fii problème boo munti am boo takkee sa ndig te gëm yàlla borom bët bu rëy bii day faju ndax jom ak fulaak fayda rek ak personnalité ak dignité mooy faj sa souci àddina waaye di naan sàngaray lambar lambar yi lacc lacc ci mbedd bi oto la fay fekk fiir la wala nga daanu dee ay waay bàyyi leen loolu yéen tamit sénégalais yi ah ngeen amee souci àddina di naan sàngara yaakaar ne boo naanee naan naan nga day tax sa suusi jeex dangay gën a yokku ndax fii ku toog ci sëriñ di la liggéey sax daa fekk yàlla ànd ca te yàlla borom bët bi rëy bi kii lay liggéey sax moom lay ñaan mu ànd mu antu boo ñaanee yàlla yàlla da lay jàppale nga delluwaat ak sa sago dem liggéey waaye ku ci am su si àddina rek dem naan da ngay naan sàngara ak di golo yéen nu ngeen bàyyi loolu yéen sénégalais ah sabali sa toy sa e ala naaxira ala kama sa doy na waar tey samay chronique ci loolu la doon wax I love you so much